xam ne ña fa woon yéeni bi dañu xamal ne Abdou Diouf ma nga fa woon ak soxnaam ay ambassadeur ay homme politique ak ñeneen yoo xam ne daal teewoon nañ li nga xam ne nag moo di levée du corps Ousmane Tanor Dieng yéeni bi de xamal ne am néewam dina ñëw fi nga xam ne nag moo ci Sénégal danañu ko xaar tey jii kay lañu koy xaar fi nga xam ne nag moo di aéroport bu Diass bi dañu xamal ne njiitu mi Macky bokk na ci ñi nga xam ne dëgg ko am solo koo xam ne daal réewum dong ko ñoroon yéenekaay bi dañu xamal ne moom Ousmane Tanor Dieng moom moom la ñàkk moom la ñu nar a fi nga xam ne nag moo di ngeeñeen 24 heures di ñu xamal ne kàddu seede yi nga xam ne daal moo di Ousmane Tanor yi nga xam ne daal moo dëdd xamal ne maître Abdoulaye Wade kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ci moom di ñu xamal ne nit ku dëggoo ngi noonu nit ku yarutaami teggin PS di parti socialiste ñoom tamit ñàkk a nañu ko réy de Sénégal ñàkk nañ ko réy laa wax moom Khalifa tamit ñàkk na xeex bi nga xam ne daal moom la amal yéenekaay bi di xamal ne gannaaw rabaa jamono jamono ji moom Khalifa Sall dafa ñàkk li nga xam ne nag moo jiite woon mairie bu Dakar Khalifa Babacar Sall maa nga ci coowal ba yéen kaay bi direct info du ñu xamal ne dañu woo ki nga xam ne nag moo di Karim Meïssa Wade doomi Abdoulaye Wade ji moom bokk na ci ñi nga xam ne daal bu fekkee ne daal yoonu dëkk bi dañuy woote nañu ko woo mën na caa am ay leeral waaw Karim Wade kay mën naa andi ay leeral yéen yéenekaay bi di ñu xamal ne ak ki nga xam ne nag moo di Souleymane Ndéné Ndiaye Jules Ndéné borom fas wi ñoom ñaar ñii daal war nañ leen a mën a woo ngir déglu seeni mbir déglu leen ma ma dem ci tàggat yaram Les Échos di ñu xamal final bi nga xam ne nag moo war a dox ci digganteem ak ki nga xam ne nag moo di Algérie yéenekaay bi di ñu xamal kàddu yi nga xam ne nag Alfred Ndiaye yëkkati na ko moom kay dafay xam ne ne jamono ji dañoo war a mën a dem ba jeex laa wax bu fekkee ne sax suñu bakkan da koo laaj waaye nag ki nga xam ne nag moo di entraîneur al moom itam ne ah mbir yooyu du yomb de ñi nga xam ne ñoom lay tàggat la muy sàkk ci ñoom moo di nañu tàmbale woon nañu ko wéyale maanaam daal ni nga xam ne daal dóor mu saf sàpp ni nga xam ne daal def nañ ko Sénégal kon nañ ko wulliwaat jaaraat ci kaw Sénégal ngir jël coupe bi ah nañ ñu ko may nañ ñu ko may benn yoon ndax Sénégal sax au moins ñu am benn étoile ci suñu maillot bi kub daal la ñu bëgg coupe rek.